amee maqaama ñeen fukkeel ak ñaar lañ cee jàngale mooy ay jam ay cax moo ci nekk takkatuma nuñ toll waaye xaw nañ bëri nag mu ne xakka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaal mu ne tara mat sànne ko xoon na biya ak man mara min na waa sànni waayu tukki wa masaaril hawa ak ray ak rañaanu waay bànneexi bakkan dama jogoon di dox xam naa jombu dox bi bëgg dox ca bokkoon sax ak tal ko sara ma sànni ko waan na ak man mara min waa sànni waayu tukki tàggaloo wa masaaril hawa ak rañaanu waay bànneexi bakkan ñoo sànni ko man ilaa an sirtu ba ma mujj mm-hmm. ibna kulli turbatin da mm-hmm. doomi sépp suuf mm-hmm. ba mel ni fu ni ci àddina bi rek dem naa fa fu ni ci masariqul ardi ak maxaribul ardi yëpp dem naa fa wa aha kulli xurbatin tey mbokkam bépp tumaranke mm. wala tey borom bépp tumaranke mm. tumaranke gune itam ma jaar ca mm. a jaar na ci xiif amul ma lekk jaar ci sonn amul ma noppaloo jaar ci ñàkk amul ma jox dara yëpp jaar na ci laa ni ndare man lam akun nekkuma woon aqtaw di dagg waadiyan menn xur wala sadu nekkuma woon de fekke naadiyan menn penci ila mm. lixtibaasil adabi mm. ngare ndir ndare ngir juumu elmul adab mm. al musli badaaji niisulo an asjaan walis njàqare yi al muxli badaaji seeral qiimatal insaani xayma yi nit mu ne dox bi yëpp nag mbiru xam-xam rek lay gëstu ndax bëri na yu lay tiital da la jaaxal mm. su fekkee am nga xam-xam dëgg-dëgg xam nam demee mm. la jaay fëkk nit ñi du la fëkkati mm. te itam ak nite daal ci xam lay sottee kon ak nawu ci xam lay xamee loolu moo taxoon daal dox bi dox bi yépp daal man xam-xam la doon moo tax nii ndare ban dégg nga lam akun nekkuma woon aqatao di dagg waadiyan menn xur wala asadu nekkuma woon de teewee naadiyan menn penji ila liqtibasil adabi ndare ngir juumu adab al musli adam madaaji niisuloo al asjaani walis njàqare yi al muxli adam madaaji seeral qimatal insaani xaymay ne hatta orifat ba xameef liye ñaxal ma haadihi sinsinatu bile jikko watana xalat ha te toxal toxalan ko alasinatu lammiñ yi an nii jële man mu doon loo xam ne ñi ma xam yëpp moom lañ may xamul lañ ma xamee ñii waxtaan ci man di seet yi may bàkkee loolu rek lañ may bàkkee wax ne man daal sama mbir daal bëgg-bëgg bi daal benn la xattan naa ci lu ne nag hatta warifat ba xamees lii ñaal ma haadihi silsina bile jikko watana xalataa te toxal toxalan ko han nii ci man ala sinatu làmmiñ yi wasaarat mu mujj alaqa di gën a haju biye ci man minal hawa ci cofeel bi ba ni hodrata ci ba nu hasra wasajaata wa sajaati ak njàmbaar bi ali abi sufrata ci ñun abu sufra ndax la ba mu ba nga xam tuuti kon rek ma nekk madrabul masali ci bëgg xam-xam ni nga gisee banu osra mm. nekkee ko madrabul masali ci tas ak cofeel mm. bañ naan hawan mm. wala ni nga gisee alu abi sufrata nekkee ko masal ci tas ak ko rek ma nekkee nekkee ko madrabul masali ci tas wala ma alqaytu ba ma sànnee aljiraana dindi baat mooy sama wàlli dox bi najraan ci najraan ba ma demee najraan waas wastafaytu ca nga tànn biha ci najraan alxullaan ay xarit wal jiiraan ak i dëkkandoo ba ma demee najraan ba wàcci fa ba am ba xamanteeg nitam ñi di jaxasoo taxistu jàppoon naa an taxistu la ndax loolu lañ rek an di yataha ay péncam moo tamari mooy sama jubluwaay moo sama fukkaati tey barabu sama mbërante mm. wa samari ak sama ngona mm. ba ma demee xullaan ba palaase mm. ba xamanteeg nit ñi dama daan dem ci jataay xam-xam yi dégg nga jataay yi waxtaanee xam-xam waaw ah, foofu laa demoon laa daan dem sama ngonaaree kaay wala dama daan dem ci penc yi fo kuntu nekkoon naa ataha duha penc yi ataha duha de ko nemmeeku de nemmeeku penc yi sabaha masaa hmm. suba ak ngoon hmm. suba jot ak ah, ngoon gu jot rek hmm. danaa fa dem waasaru dan na yët fiyaa ci penc yi alama ci xam ne sarra bégloo na wasaa ak lu xam ne naqadal na ñaari lu rek dan naa ko fekke muy xewal gu agsi wala saboog muy lu ñu ndokkee lee nit wala lu dan naa ko fekke na baynama ana diggante ba man fii naa din maa ngi cin pénc max soodin ma de mu ñu feesal wa max pilin ak dajewaay ma soodin ba de bu ñu teewee mu am benn bis ma nekk ci pénc mu xam ne nit ñu bari ñoo fa nekk te barab ba sax naka jekk dikkuwaay la ci mbette rek jasama goor na mooy dikk na agsi na toog na jasama goor na mm. la day naa fi ñun himmun góor gu màggat mm. foofu rek genn góor gu màggat dal di agsi mm. ko nekk na ci hit mun yére yoo mu ngi soli sagal fa hayya mu nayoo tahiyata maliqin nayoo aji dagu bilisanin ci lammin daliqin wuraaji fasaa mu dal dañu nayu mm-hmm. nayu hinu ko bëgg dara mm-hmm. waaye rek ku xam kàddu la ku fasaha la mm-hmm. fahaya mu nayo he tahi mu nayo he tahiyata malikin nayo aji dagu bilisanin ci lammin dalikin wuraaji fasaha summa qaala topp mu ni yaa budural mahafili yéen weeri daje yéen weeri daje kay yéen ñi mel ni weer ci barabu daje kay ndax di ngeen taaroog ni ngeen xamee daraja mm. wa buhuural nawaafile tey géeji mayi mm. yéen ñi mel ni géej ci joxe ni ngeen tabe mm. aa xat ba yana de biral de biral a subu suba li si hay ni ñaar ñaari ba moom de waaye ku gis suba wan na la a guddi moom mën nañ naan fa lëndëm loo gisu waaye bu bët setee moom mm. loo gisatul ci yow la mm. waaye suba moom bu dikkee leeral mm. man de ku ma gis ku ne su fekkee xel moo sotti nga xam nga ne loru na ne day loru su ko defee xaalam du ko wane nga def borom xel doo mën a xam ne loru na waaye ko dem ba xaalam wane ne loru ko kay booy borom xel boo ko gisee da nga xam ne loru dégg nga hmm. it jasama dal di góor la day naa fi ñun himmun góor gu màggat hmm. goo xam ne alayhi nekk na ci moom yu rab hmm. fahaya mun na yoo tahiyata maliqin na yoo aji dagu bilisanin ci lammin daliqin wuraaji fasa summa qaal topp mu ne yaa budural mahafil yéen yéen ñi nga xam ne seen taar yi ak seen daraja yi ci mbooloo mu ngeen nekk mm. da ngeen di mel ne ay weer yu fekk mm. wa buhuran nawafil yi mm. te yéen ah, tey géej yi may yi yéen ñi mel ni géej ci mën a njëriñe xat bayana biralal na de asubu suba li si ay ne ni ñaal borom ñaari bët moom de waaye bu guddee ñu ne fa lëndëm koo gisut mën nañ ne lëndëm gi la de waaye bu bët xasee ba set nag koo gisut de du ci yow la de koo gisut koo gisut ci yow la léegi su fekkee dafa ñàkk te am sax xaalam wane wu ko mën ngaa do borom xel te doo xam ne fa ñàkk de waaye bu dema dem ba xamatu sax xaalam wane na ko masala boo dee borom xel boo ko ne jàkk rek xam ne loru na de wanaa ba te wuutu na alxayaanu jàkkaarloo manaa ba xat lay ni wuutu waaye ñaari way maandu luñ la wax indi ñaari seede yu maandu loola day sax kenn du ko mën a dàq mm. luñ la wax te nga teg ci sa bët mm. loola it nag sax na de mm. fama sa ana lan taraw na ngeen xalaat nag ra'yu luy seen xalaat nag fi ma taraw na ci li ngeen gis lu <laughs> seen bët ci man sama ah lu ci seen xalaat ah ana lan taraw na ngeen gis ana lu ngeen xalaat ci ra'yu la baxoo fima ci li nga xam ne taraw na yéen a ngi koy gis a ndax da rafetal alxaw na ndimbal am tan aw na wala da ngeen sori istudan waxtu waa na leen xoo ndax yéen ku leen wax ci lu baax ngeen xëy ji ko wala sabu halal moo leen gën a siyaabu ku leen wax ngeen sori fa qaaloo gaañi daal de wax loxo ñaar gaañi ne ko tallahi giñ naa ci laqad sista merloo nga ñu de gaa yi yow ne li ñu def neexuñu de bëggal ñu dara dañu engagé ñàngal li ñu def neexuñu dara warum ta sàkku nga antum bita ba nga balalat ba xitta nga nga cal su fekkee bëgg jëlee ci ñun dara la doo jëlee ci ñun dara ban mooy maanaam bëgg yëfi nit da ko jaay sañ-sañ <laughs> dara lañ leen di jox bëggal ñu dara dañu engagé ñàngal mooy laaj doo laaj rek joxuñu la dara waay fokkul naa ñu ne ko tallaahi gis nañ ci yàlla xat xista yow merloo nga ñu yow li ñu def neexuñu dara warum ta sàkku nga antum bita ba nga ballalaat jëlee ci ñun dara moom nga bëgg ba xirta nga ngaccal waaye dara nga fi du jëlee fa naasa dahumul laa mu laaj ci yàlla ne xam maasaa ci lan sa dahum la leen tere xata taw jawa ba mu xeewalaat dahum seen ak delloo mu ne ana lu ma leen yàqal hmm. ba ngeen ne du du ba ngeen ne man du ngeen ma defal dara hmm. fa qaalu ñu ne ko ku naan nekkoon nañ na tamaadalu di jamante hmm. de fettante bil alxaasi ci cax ci jam ñun dañ doon jongante ci affaire cax kama yutta naa dal ni ki dee fi fettante yow man bilaasi ci bisu léewtoo yow nga fekk ñun ñuy joxante ay cax kenn ku nekk di seetantal loo joxe kenn ku nekk di seetantal liñ wax mm. noo koy déggee mm. yu mel noonu nga jàllale ko dañu engagé ak ay wax yu ñàng yi li mm. sa bëgg-bëgg wax mu laajte ana ki caxe luñ caxe ñi wax ko kama tamalaka saxut an saansa lu muy mu tasaare minal man doole yi ndax du la minal man doole ca lañ fettoon lañ diire woon lañ doon fette mu laajte cax yi bañ ko waxee yëpp mu firi leen waal xaqam mu héegal haadal fadla ngënee lii binamatil fudool ci yooni neen mu ne ah, ki yi day dara yi day dara nit ñi passé nañ ci bu yàgg loolu la wax bi mu laajee ana yiñ coxe yiñ caxe ñu wax ko yëpp daf leen firi ci sax ba mu leen waxaalee bañ xam ne xam na liñ firi te mu jàmm daf ca tegaat baal yi day dara nit romb nañ yi mm. loolu la wax <laughs> waaye koo xamagul dajeeg moom gis na xarit deret mm. sooy wax ak moom soo xeeboo teere mm. famatamalak ta saxoot an tasan an san an sa lu mooy mu tasaare mel man doole cayen jame waal xaqa mu héegal hadal fadla li leen nga neel binamatil fu dool ci yooni dara fala fala sanadu dal de ko matt nag dal de ko jam nag fala sanadu dal de ko jam nag lusnul qawmi way fasaayi nit ñi wala boog làmmeñi nit ñi lisaan lusnun wala alsina kooku lu mu firee ah ah, ah. ah, ah. muy jamono bi ah mooy aji fasaa mooy fasaa yi nit ñi mooy waxkat nit ñi dégg nga hmm. mooy fasaa uum lësinul xam mooy fasaa yi nit ñi mooy fasaa uum dégg nga hmm. wa waxasoohu hmm. ñu dal de ko jam bi asinnati law mi ci guntu xi yeddaage bi mu waxee lii nag ñi nga xam ne ñu fi nekk lañ xam sa xaaf xam kàddu torop ne ko nag ni nga defe du ko nag fekk nga ñu ci dara xam nga jamono rek wane nga ko warul tax nga dugal xeebel nag warul tax nga def ko de waaxada mu xara huwa moom yatanassalu di jéggulu mooy di ngantulu min hafawaatihi ci tar xeesam min hafawaatihi ci tar xeesam wayata wayata naddamu te muy réccu mm. ala faw hati mm. ci tuddam mm. mu commencé kon baal leen ma xaq man maa juum rek wax ngeen dëgg loolu la wax waaye waxum ñoom mu di boona way way nuur lañ ala muwaaxadati ci jàppee ko rëcc rëccam bi wamu la boona te way xëyu lañ daa ye munabadati aji aji hoote sànni sànni ko sànni anteeg moom waaye ñi mel ni bale daal fa mm. mu ngi mm. jéggulu rek di jéggulu rek de ngantulu rek waaye ñi la di gën ñàngar rek mm. di gën di rek woom te ñoom mu di boona way nuur lañ xalaa mu axasati ci jàppeeku njuum téem li wa mu la boona te way xëyu lañ daa ye mun a badati aji hoote sànni ante mu sànni ko ilaan xaala ba mu wax lahum ñaar leen fekk na nit moom man la ñàkk taxaw bu taxawee ci tiraanga rek taxawee neneen nit ki lu la tooñ tooñ bu la jéggaloo da ko war a jéggal wala bu la jéggaluwut da mujj taxaw rek ci anam wala wala boo ko jéggalu da mujj taxaw rek ci anam goo xam ne soo jéggalu moo doon du gën a doon ndam dafa am ak ab waay boo xam ne faandoo nag ak buur da ko yël nekk waxtu wu nekk liggéeyal na ko ay at yu bëri mm. buur bi mosul def lu muy kontaan mm. ci liggéeyam mm. benn bi muy indil ko lekk xam nu rogaatee ci ndab bi toq buur bi buur bi na ko dama laa rey su tàngale ma toqal ñoom mu ne ko te caaxaana mu ne ko déere rek mu këpp buur bi ndab bi këpp ko ko rek yow ku ñu ku ñu waxtaanee ci benn topp topp mu ne ko waaw gis nga man dama ànd ak bu yàgg hmm. sikkante wuñ hmm. dama bëgg man su ma la këppee ñam bi hmm. ma reyee ñi wax ne man maa la tooñ su ma de bàyyi la der bu rafet muy gën rek loo xam ne rëcc la te neex nay muñ nga dem sa der de yàqu doo fi jarati dara loolu rek moo tax ma def lu toog toog bu yàlla waa demal bàyyi ko seetlu nga koy seetlu bu baax a baax am na ñoo xam ne duñ jëfandikoo ci ñoom doole ndànk-ndànk rek lañ laaj dindi la ko wax waaye moom it de ngantulu na ngantulu na ngantulu na gaa ñuy tere mu mujj wax leen dëgg yo wax mu mujj wax leen ay dëggam rek ko mu la boone te way xëyu lañ daa ye mu naa ba da tiye aji xoote sànni kilaan qaala bu mu wax lawum ñaa leen ba mujj ne leen yaa qawmi yéen samay bokk inna lixtimaala naka xenu tooñ min karami tafin bokk na ci tedd ak jikko man a wéy ci lu la neexul nag xeet la ci mbaax xam yoo xattan man koo supporté waaye xattanoon lenn su digganteeg nit kooku daal beneen jikko la faxat doo bàyyi leen ani lasin ci lakk mooy ŋàññi mm. wal xasin ak wax ju jagadi mm. wala wal xasin ak lakk ba tey mm. seen wax yu métti yu ñaa ngi ngeen dem wax bàyyi leen ko summa topp halumma kay leen ilaa nul xisa jëm ci ba ñu jame xat wanu hakkima ak ñu xatteloo al mu bari saa jiraw li ma leen li ma leen fekkoon ngeen di def ci dellu nañ génn ay cax léegi nag dootu do loxoy neen waaye ku joxe eh, hmm. hmm. sax xamuñu ko war nañ laa fay ku joxe sax te xamuñu ko war nañ laa fay loolu daal bu ko mënee parce hmm. que kana dal de dal hen da dalika foofale tawa xudduum seen ak takk xam naa ñàngoon nañ lool waaye mel na ka ni booba lañ rësal nag wan xal la dal di fecceeku xoqaduhum seeni pas-pas mu mel ne nañ fa soxoon ko daal ak sonnal ko loolu boobu lañ ci génn wara doo ñi gërëm bi maa li nga ne sarata sartal na ko alayhim ci ñoom wala hum ak ñi xaal leen ñu ne kon noo tëralee mu ne su fekkee man indi naa ay jax tontu ko da ngeen ma fay nangam su ngeen ko tontoo ma fay leen nangam su fekkee indi ngeen ay jax su ma fay ma nangam gaa ñi d'accord waxtara hoo ñi sàkku ay yëkkoona ba mu nekkat awalahum daaji njëkk seen ñu nag yow nag lañ bëggoon nga tàmbali faam sa ka mu dal di jàpp mu def nekk mu def mekk rey sama yooxat kem lu deefi fas si son njëfu dal ayu saddu wala deefi takk ni son laxasay mu toog diir bu gàtt rek su ma xaal topp mu ne ismaho déglu leen wuqiitum yal na fegaleef leen attay sa tey déglu leen wa muliitum te yal na neexaleef leen alañ sa dundu wa am sada baax na foofu jànkatu daftali ak soo commencé di Cobaan Talla Kelle wiir espèce bu fookaay lay doon. bu xam ne ci morsu wiir lañ koy defaree. su jamono tàngoor dikkee. ñu ko takk mu tiim lal yi. su ko defee dañ ko wicc ndox ba mu sedda sedda sedda. ñu daal di ci def gàtt ba mu neex xëy su ko defee ñu defal ko ngëbukaay. soo tëddee bëgg mu wuppal la. da ngaa ngay ngëbukaay jël ngëbukaay gi rek boo ko pelee yaat rek. muy lu huppal ab diir nga di yëg air bu neex ak xëñ bu neex bu dalee rek hmm. nga dellu yëngataat hmm. bu yëngataat mu commencé hupp waat hmm. moom wa jaariyatin fi fi sayriha mutmaillatin walakin ala izril masiri qubuluha laha saiqun min jinsiha yastahiqsuha ala annahu fi lihtisabi rasiluha ترى في أواني القيظ ينتف بالندى ويبدو إذا ولى المصيف قهولها daal loolu la bind dama ko gisul sama weeri gisuma loolu la mu ne ko jaariyatin bëri na aji daw musmaillatin ku daa ji gaaw fi seyri haa ji doxam ndax buy ko yëggatee day bu baax a baax walakin li fi nekk ala isil masiri nekk na ci gannaawam dox hmm. ku boolu waa wëññeeku hmm. bu départ nu xiir jëm nii hmm. si tuuti mu départ nu xiir xenu nii nekk na lu ñoo bukkee rek moo tax ba jaariyatin bari na aji gaaw si sayri haa ci doxam musmayan la tin lu daa aji gaaw wala tin li fi nekk ala ibil masiri nekk na ci gannaawam dox ku boolu waa wëññeeku laa ñaan na ko saayiqun aji màng mm-hmm. min jinsiha ci xeetam mm-hmm. yastahissuha boobu dana ko xiir dana ko doxloo mm-hmm. mooy ngëbukaay bu aji ngëb da ko ci yëngatee ci wiir bi lay bokk xalaat na woo ànd ak moom refiilu xàndandooram la fili ci saa si ci xiir gi mu koy xiir ngëbukaay boobu mooy tax mu bu baax te bu bu baax moom ngëbukaay bi ñoo jokkaloo waa dem na ko gis mm. ci awaanil xayri ci jamonoy tàngoor tantu mm. fu muy toq mm. bin na daa lay jamonoy tàngoor ngay gis mu tooy xet ndax boobu lañ koy soxla de ko tooyal di ci def gat wayab doo dana feeñ xuxóolu haa randa tam wowam isaa walla bu joxee gannaaw almasi bu cooroon waaye jamonoy sedd kay dayoo kom la kenn du ci fa suma qaal topp mu ne hmm. waakum jàppaleen yaa ulil fadli yéen borom ngëneel yi hmm. wa marakis al aqli tey taxawaayu xel yi hmm. kon borom yéen ñii borom xel jël leen beneen a ngi de waan sada mu dal de sadd mulxisan daaji jame fii xaabooli naxli ci xaaboolu tàndarma garabu tàndarma yaram wi dafa ñat bëri ay dëgg ba tax buñ dee xeex pexe lañ dee xeexee hmm. dañ koy xañ waaw hmm. ah, dañ koy xa xañ di ko hmm. ba mu def fetlu gu mag a mag a mag su ko dee fetlu googu la ñuy ràpp mu nekk bu neex a tax soo ci bëgg xee buum boobu ngay jaaree mën a àgg ca kaw ga sàkk waaye yaram wi moom man la jeñat te lu baax fetlu gi ci garab bi lay baxee ko moom la ñuy dindi te te duñ ko duñ ko dagg a kaw mm. waaw dañ koy dañ koy xaaj ci ba mu booyu mm. waaye duñ ko jeexal ca kaw dañ sax am dëgër ca kaw mm. ñu ràbb ko ba mu di buum soo bëggee yéeg fi ngay jaaree mën a yéeg jot ca meññan ma waaye yaram moom ni mu melee xel da jot ko ñan waaye xéegukaay googu moo tudd xaagool xamul nu ko wolof di wax ndax ñun amuñ tàndar moom moo tax xamul nuñ koy wax mu ne wa muntasibin ila ummin mm. tanasa asluhu minha mm. yuaniquha wa qad kanat mm. nafatuhu burhat burhatan anha bihi yatawassalu aljani wala yulha wala yunha wa muntasibin bari na aji haskanu ila ummin jëm ci ndey tanasa sosuna asluhu cosaanam minha tukkee ci ndey moom de ndeem la ànda hmm. yohane koha dana dox kohanteeg moom hmm. ma ndey ji de dana dox kohanteeg ndey ji hmm. waxat kaana te ji nekkoon na nafadu di ko dax buratan ab biir xanaa walit ko day ko xaaj xam nga ne féll gi ak peer bi àndatuñ mooy dàq gi waaye ca kaw nag ñu nga jàppante ba liñ man ji àgg ca bi ci moom yatawassalu lay jottale ko aljaani aji tooñ wala aji bi aji wit xam ne ku bëgg jaar jël mi te lay jaar man koo jël bi ci moom yatawassalu lay jottale ko aljaani aji kotti wala aji tooñ wala yoon haati defu ko yedd ca la moo def wala yoon haati defu ko tere mu daal ku bëgg xaal ci kaw ndey ji ci moom lay jaaree te du baaye mooy xaaboo ji waaw su ma xaala topp mu ne waaw wóodoonakum jàpp leen alxafiyata al alam aji nëbbu mandarga ji almutakirati zulam bu hmm. daa ji lënkaloo ci lëndam hmm. léegi nag bu gën a naqari xam ngi nag jël leen ko hmm. wóodoonakum jàpp leen alxafiyata al alam aji nëbbu ji ji mandarga almutakirata zulam bu daa ji lënkaloo ji lëndam waan sada musadda mulxisan daa ji jame fil qalami ji xalima yoon bi xalima moom affaire mm. mu ne wa maamumin bihi horifal imaamu mm. kama baahat bi suhbatihi lkiraamu mm. lahu id yartawi tayasaanu saadin wa yaskunu xiina yahruhu luwaamu wa yudri xiina yuftasaa dumuhan yaruqna kama yaruqul ittisaam wa maamumin bëri na maamu moo xam ne bii ci moom mariba la xamee se al imaamu helima xam nga baaraam bi mooy jiit da génne melaw xaraf bi xalimba gi topp ci mooy jël xalimba gi da ko jaarale fi mu bëgg a jaar xalimba gi génne melaw xaraf bi léegi su baaraam bi paree ba mbind mi def bi ci mbind mi ngay xamee ni war a rafet mën a bind ci nit ak xam li muy bind ci ak xam li muy bind mm. kon mel na que ni xalima gi ci baaraam bi mm. waaye lii tax na ñu xam jeexitu baaraam bi ci moom lay mm. kama baat ni ki damoo alkiram way tedd yi bi suubati yi ci àndoo am mu nekk maamum mu xam ne ñu baax ñi dañuy damoo ànd ak moom la xam nga ne dañuy damoo mën a lawoo ñaal na ko moom maamu muumu il yàqtari waxtu waa dana mu mandi taya saanu saadin téyeg aji maa moom daa su mandee nga koy gis muy wëreelu du aw fenn aw fii de dox dox yu dëgg dëgg mel ni koomar ci wutu naa ne bu mandee la koy def xam nga kalima bi bu ci daa nekkee dañ ko soxla pour de ci biir de ci génne melo yàlla fi ñu soxla yaa muy aw fii di aw fii wees ku nu dana dal nag inu mm. yaaru waxtu waa dana ko gaar mm. al waa al waawu mar waaye su maree tey mm. dëgg rek waaye man na li ma xaw mooy ku mar mooy mu digum naa ne ki naa ma ndege ne te mu ne kii de du noonu ok bu ma ndee lay wëreelu mel ni ku wutum te fu mu tuur ndox fu mu tuur ndox mu were waaye bu maree tey dëgg rek wayu dri dana mu tuur inu yutta naa waxtu waa dem na ko doxloo du mu han ay rongañ yoo xam ne yaruq na danañu yéeme danañu rafet hmm. kama yaruq ni kii yéeme hmm. alitisaamu muumi hmm. te it buy dox dafa boole sotti rongañ te muy rongañ yu rafet nag yu ñu yéem yi kontaan ni yi kontaan yi jëre su ma xaal topp mu ne waaleykum takkoo leen bil waadihati dalil ci aji leer tegtal al faadihati bu daa ji gàcceel maa li nga xam ne xii la na ko tey nag leer a ngi nii boo xam ne xëy na ku ko a lëma si xas na leer waa am sada mu daal di sadd mul xisan aji jami filmili ci tusngel bu commencé indi at beneen laxdu waaye ci tusngel la nag mu ne wa maa walaysa lahu walaysa alayhi fi nikaahi sabilu ndax doo ci tegu ah waaw lu ci tegu mata yaxsa haasi yaxsa fil haali haadihi wa imma la baadun lam lam tajidu yamilu yasiduhuma inda almasibi taahudan wa birran wa hada fi lbuholi qalil noonu la vraiment ana lan naa fi woon aji denc la hmm. foofu tey ni ñaari mbokk yoo jigéen lay denc de hmm. jëram ci lu nëb hmm. ci lu fay bokk bi anan ak ci nëb day denc ñaari mbokk yoo jigéen walay sa lëhoo te ñaalu ko walay sa xaale yi te déete ko war sa biirul benn yoon fi nikaay yi ci sëyu te sëyu boobu di yoon niwu ko ci de xam nga sungel bi ñaari bari mbokk jenn jëmu juñ nekk ci lay liggéey ah ñaari bët yi nekk jenn yi bokk jenn jëmm juñ nekk. ah mooy naa ci woon wax tey nii la. Mm-hmm. nit ki mën naa wéy de tusngeelu. nit ki mën naa tusngeeloo ci biir nit ñi. kon jeexalan wax ko bi yatan la. te kenn aaye bu di nag benn tusngeel. tusngeel ñaari ba. kon lay sa loo xam fi wala naa lay fi ni kaay sa biir gis nga ko. wa ba ana lan naa ci woon aji denc mu. wax tey ni ñaari mbokk yooyu jaran ci lu feeñ wa xufyatan ak ci lu nëbbu wala san alayhi sa biirun yoon mm. fi nikaay ci mm. te mata yaxta waxtu um dikkalee de haa mm. si kii rek yaxta dana mu dikkal fi laale ci waxtu wa wale haa si yi kii rek te bu am lante kenn ki rek ci saasa lay am lante keneen te bu jengee baalum borom kër lam te ji du doo ko fekk yëmilu mu jeng de te kenn du waaw bu ñu sungalee benn bi rek dañuy sungal beneen bi ñu topp hmm. yasiidu ma dana leen dolli dana dolli ñaari yooyu xendal hmm. masi bi fa bi jaaw hmm. temps wu dan nemmeeku wa bi ram ak ak ak jekk karam te itam nag nu moo gën di jëmee ci mag de gën di xam lante ñooñu le xam nga sungal lu ñuy fajoola nooy gën di jëmee ci mag sa kawaru bopp di gën di weex hmm. da ngay gën di perte leer ak bët hmm. suba da ngay gën di soxla lay faj ak sëbët hmm. mu ne waxaadaa lii de xalilu lu néew la bil moali ci borom kër li ñu xam nag mooy nit ki buy ndaw ni muy soxlaam ndeg waa këram suñ demee ba ndaw gi jeex soxlaam ci ñoom mën naa bañ a tee demee noonu mu ne waaye kenn nu muy gën di doyee mag rek dëgg di soxlaa teg ñu ñoom ji su ma xaal topp mu ne wa waxaakum ndax du ah wahaadihi bii yaa ulil albaab yéen borom xel yi nag mayaarul adab mooy ma jox leen beneen su fekkee ay wuta ba ngeen dana leer waantoda mu dalde sant mulki san daa ji fi dawla bi ci koli rootu kaay la am nu ko waxee noo xam ne xëy na wuute naa suñu ratukaay mm. moo tax melal ko gépp ak melal du mu ko man na xam na mooy demee moo tax mm. mu ne wajaabin bari na aji becc ngal mm. wa wate moom mawsuulun ku ñu jokka la wa soolun jokka koon la laysa bil jaabi duuma aji becc ngal léeg mu def definu ku saboote léeg-léeg mu def definu ku rafetal wajaabin bari na aji becc ngal woote wa mawsuulun ku ñu jokkala mm. wasuulun jokka koon la mm. laysa bil jaabi du waaji beccingal mm. xariqun aji lab la xam nga ñun li ñuy tuddee pëli da ko roxe duñ ko dugal ci biir ndox mi loolu moo tax xaw ma ko dëgg dëgg mooy dafay lab ci biir ndox mi léeg-léeg boo cee root baarisun aji génn la léeg-léeg mu génn wan jam na nga xéemu lëxoo ñi al ko min raasibin caaji nuur taafin kuraaji fay xanaa bu doon baax sax waaye bu ñu nee xoli moom wax dëgg daal bu doon baax sax xëy na yëtu dana mu sotti du moo amax doomi ronga ñi ku ñu tooñ mooy bu jëlee ndox mi ni muy siitee noonu waya bi mu te dana tooñ xat ma mit laa fi tooñe tooñe tooñe sànka koon mooy bu duyee ndox bay ñëw comme laal rek mën na laa gaañ hmm. wa toog saa dem na ragal min wu ci am hiddatuhoo ñaw kaam walakin li fi nekk xalbuhoo xolab saafin aji sell la buy ñëw ñëpp koy mooy bañ mu laal leen mel ni ku ñàkk ku ñu ragal te nag la ñuy biir ndox muñ soxla soxla la te nag ku sell xol ñu ragal sa ñaan awa tux saa dem na ragal min wu ci am hiddatuhoo ñaw kaam walakin li fi nekk xalbuhoo xolam saafin aji sell la falamma rasaqa ba mu sànnee bil xamsi ci juróomi jam mm. alladi yi nga xam ne nasaxa toflante na ko mm. bi mu dee juróomi jam yi mm. xaala wax na ne yaa xawmi ay yéen samay bokk tadabbaroo settantal leen haadihil xamsa juróomi jam yi waaqidoo te na ngeen fas alayha ci ñoom alxamsa juróomi baaraam juróoma ngi de su ma soppala yeekum ngeen seen seen pexe mm. wadam ma zaydi ak boole labi mm. abil istiyaada wala dolla deku min mm. haadal kaydi ci bile la ci bile nal bu leen neexee ma yemale affaire bi su leen neexee ma yokk mooy la mu ngi nii daal juróom a ngi nii su leen neexee ma yem fii su leen neexee ma yokk waaw ah, su ma soppala yeekum ngeen seen seen pexe wadam ma zaydi ak boole labi awil ziyaada walla dolla degu min hadal kaydi ci bile nat qaala haaris nee na fasta fasta daldi hoyofal al qawmu nit ñi sohwatu ziyaadati bànneexam ndollal ala maa ànd ak li nga xam ne usri boo naan da leef na leen ko min al balaadati ci ndox nit ñi mel ni doyeeru donte jame xamuñ ci dara fa qaalu ñu wax la inna wuqufanaa naka suñu taxaw doona xaddi ka wali sa dayo la yufhimunaa danañu wedem loo ani siraayi sandika ci taxa so dañu béy wasi fa firindika ak settantal sagat ñu ne ko daal ak ku ni yow daal tàmbali yow musal ci lii ba daal dafa waral daal nañ ko mënoon xamee nañ mënoon jëriñoo ci moom du man du man inna wuquufanaa naka suñu taxaw daal doon xaddi ka wali sa dayo li yëf yi mu naa danañu wedef loo xam ne tiira yi lëndi ka wali taa sa doji béy wati fa pirin di ka ak settando sagal fayit at moom ta soo ko daal comme ni indi ka tuddee bi yow su la neexee nga def ko fukk wax mu daal di desamu ittisa zaman desamu koo xam ne wala jël duufu la darbo jiram wan kasana ka tagg kam ngo ajo koyo ane baana ko léegi nag gaañi dañ ko wan ne ko léegi daal ñun daal doyalaguñ boo ñu ko defalee fukk mu baax mu kontaan lool su muftataha topp mu tàmbalee am nu xattu dugi bil basmala mu kon bismillah waan sadaf dal de sadda murxisan bi aji jame fil musammala hmm. musammala seddalukaay ndox lay dox hmm. ñoom ñoo xam nañ koy liggéeyee hmm. waaye seddalukaay ndox lay dox nag waaye na mooy demee dëgg-dëgg nag moom ko man xabu ko loolu laa la mën a wax rek dégg nga léegi lay doon daal wala pal lay doon boo xam ne dañ fexe daal ba de ba de ci seddalee wa masruratin mahmumatin toola dahriha wa ma hiya tadri masrur wala algham tuqarrabu ahyanan li ajli janiniha wa kam min waladin wa kam waladin lawlahu tulliqat al-umm wa tu'adu ahyanan wa ma hala aduha wa yum'adu man lam yastahil aduhu zulman idha qasura al-laylu tulibba wisaluha وإن مالت والإعراض عن وإن وإن طال وإن طالت والإعراض عن وصلها نوم لها ملبس باد أنيق مبطن بما يصدر لكن لما يصدر الحكم ومسرورة bëri na ku ñu dog lu tëm xam nga su fekkee ci lu mel ni leket nga ko def da dagg buntu bi def solu kaay ndox loolu dagg surra bi dégg nga hmm. wa makruuratin bari na ku ñu dagg luttam hmm. boo ko firee noonu loolu mooy maana mi hmm. mahmuumatin kare ku ñu muur ndax dañ cee muur morso bu tax boo tooyale morso bi ndox mi ci biir mën a sedd <coughs> doola dëhriyaa yàggayu jamono masroora mahmuuma la hmm. wa maa hiya déet moom nag tadri muy xam ma an la asrooru muy mbégte hmm. wala xam mu du jàggeen jàqare hmm. anaa la masroora mahmuuma waaye xamul kontaan te xamul jaaxle waaw masroora ci surra la bàyyee ko wa masroora tin bari na ku ñu doglu tam mahmuuma tin kare ku ñu muur doola dariyaa ci yàggaayu jamono wa maa hiya déet moom tadri muy xam maa ana lan asrooru mooy mbégte mm. wala xamu du ca gën njàqare mm. tu qarrabu def na ko jegeñal ahyaanan ci jamono mm. li aj li janiini ha ngir mbemuta bu jamonoy tàngoor dikkee ba ndox mi sedd ah doy bëgg mu sori la dégg nga wa kam waladin bari na doom ju xam ne lawlaa ah tulli xat fasil alu mu ndey mooy ndox mu sedd ma ci biir wattumaatu def na ko soriloo ahyaanan ci jamono wa ma haala te jàll bekkuwul haa du haa miinam jamono yi sedd bu dikkee nit ñi def jaaru muy seen xelaat boo ca defoon ndox ke tey tey la koy dàqa seddal waaye ko moom doo ko soxla de mooy léeg-léeg de bëgg jege tam du kuy soppeeku wayim haa du man soril koo xam ne nag lam yette yi xaw du woo kóolóoreem zulmun tooñaange lu muy sow yow maa ida xasura bu gàttee ñëwal hmm. yow lum de ida xasura bu gàttee allaylu guddi ku hmm. tulis da neexloo wisaalu ha jokkoom hmm. mooy jamonoy tàngoor buñ ca tolloo xam ne bëccëg day gën a yàgg ñëpp dañ koy bëgg di xam wayen taala wali haraadu du mooy han wasliha walis jokkam nu mun xewal la buy jamonoy sedd nag xam ne bëccëg mooy gàtt guddi de yàgg kooku moom nit ñi duñ da bëgg mu jege rek laxaa ñaal na ko malbasun koddaay baatin lu daa ji feeñ mooy liñ koy muuree ani xun lu daa ji rafet dañ koy xool dëgg wiir mu battanun lu ñu biiroo la bi maa ci li nga xam ne yus dara def na ko xeet hmm. biir beneen ndox a ca nekk hmm. te ndox wiir bee ko gën a seer hmm. lakin li fi nekk li ma li ma ñaan na li nga xam ne yus dara def ko xeet alhukumu àtte bi ànd ndox mi nag moo tax ñu def ci wiir waaw ñu ngi ko faddee wiir ba ba mu daj de bi ndox a ci nekk ndox mi wiir bee ko gën a seer waaye ndox mi tax ñu def ci wiir bi de waaw ah. laha ñaal na ko malbasun ko day baadin lu daa ji feeñ mm. ani xun lu daa ji rafet mm. mooy xodd nañ ko wiir ba mu daj mm. mu battanun ku ñu biitoo la bi maa ci lu xam ne yus dara def na ko xeeb biir ba na ndox te ndox wiir a ko gën lakin li fi nekk nag li ma ñaal na li nga ne yus dara def na ko xeeb albukum hatti ndox mi nag moom lañ soxla ba tàññale ci biir su ma kasara nag an ya an an yaa bi ci bañam ci bañam mm. ak sufri yu da way xem mm. mu daal muy ak bañu saaraani nag mm. waan sada mu daal sadd mul xisan daa fi sufri ci wex muy jame nag ci wex mu ne wamar hoo bi saba naamin wama yara wala yasrab yura fi l asri duna nahri fasma wasfahu waxja wamar roobi saba bari na ku ñu ku ñu weg ñëw kam hmm. koo xam ne xam na ñëw ko goo mën a gaañe hmm. naa min ku daaji màgg hmm. te dafay màgg wama yan ha te duy sàmm duy lekk daal wala yasrab te duy naan itam moom de dafa am ñëw ka day màgg te duy lekk duy naan yuraa dim nga ko gis fin hafri ci fukki fan yu njëkk ci weeru tëbaski doona naxari walis bi sab lañ ndax bi soxla dañ ci santaane dagg hmm. wala yuraa dem na ko gis hmm. filanc ci fukki baaraam hmm. doona nag rivalis dënn li nekk déggéen la ci fasma déggal wasoo melalam waa jëfte nga yéemu ah welay waxe dégg suma taxaasara topp mu fokkat taxaasural hin fiiti fokkat ak njuuma mooy jommalekat waan soda mu daal de sadd mulxisan daa ji jame fii taqatil kibriti ci takka takkatal almet muy jame ci almet yoma mahkuratun tudna wa tuqsa wama minha ida fakkarta buddu laha rasani mustabihani jiddan wa kullun minhuma li axihi diddu tuadabu inhuma xudiba wa tulxa إذا هدم الخضاب ولا تعد وما أنا lan maxxuuratu lu ñu xeeb la. ana loo xam muy lu xam ne seerul amul xiima dëgg-dëgg sax lay niru. taxul mu jaral nit ñu lu bari. naa def na ko jege ña te léeg-léeg ñu yëg ne soxla nañ ko. wa tuqa saa te na ko sori loo léeg-léeg itam kenn du am jom soxla. wa min ha te nekkul ci moom bu dun daw waay. ci saa fa boo xalamee. ànd ak ba ko parce que mu mën léeg-léeg daal ñaari ñoom soxla day ñàkk ci ñoom soxla jëriñ hmm. ko muy lu seer lu am xiima hmm. ànd ak bàyyi ko fàttu nag mënu ko hmm. laa ñi xaan na ko rësaani ñaari bopp mustabihaani ñu di wéy ni doo jiddan lool na seen al me day defee xëy na moo tax mooy ñaari ñaari bopp yu ni doo la ñaari bopp yi bu ne compay moo ci nekk wa kullun te képp minu maa ci ñoom ñaar mm. gisul noonu la li yi ñaan ñaan mbokkam mm. waaye fuñ dajee xeer safara tax mm. dañoo mel ne jubóowuñu daal laa ñaan na ko rasaani ñaari bopp mustabihaani ñu daway ni doo jiddan lool wa kullun képp minu maa ci ñaari bopp yi gisul noonu la li ak yi ñaan mbokkam fuñ dajee xeer safara tax na ñaari combat yi boo leen fenqalante to en ce def na ko bugal irhuma bu réexeesee ñaari bopp yi mm. nga firi haale xudiba mm. xudiba mm. soo xamee ne ñaari bopp yi la cuub gang gi foofu la ñuy jël di dóor lantu ñaari bopp yi waaw ah, ton addabu def na ko bugal irhuma bu réex lante bu réex bu réex lante ñaari bopp yi nga firi haale xu ma irhuma bu suubesee ñaari bopp yi nga firi haale xudiba watul xaa def na ko sànni isaan addima buñ ñàkkee ñoom ñaari bopp yi alxidaab ba réex mooy ciw mm. wala temps du tuddee ko limati mm. soo xamee daal li ñu suubee bopp yi mu ngi daal mm. boobu li ñuy nekk di fëggalante bopp yi waaye soo xamee ciw gi dem na rek dañ koy sànni monsieur Amady demee la daanaka ku xam nu mu demee mu mën a gis jàmm nu mu mel ne dégg nga ñun biñ doyee gune dañ daan wax ne fanweeri waxam laa ne yi bokk nii te ku génn bu bëggee perte rek dootu dem seeti xam nga noonu la mel waaw ah, ker bi waaw ah, ñun noonu lañ xamee almet ñun ñun noonu lañ xamee almet waaw hmm. ah, ker bi ñun loolu lañ noonu lañ xamee almet waaw hmm. waaw ñu doyee gone daan nañ ko jamee fanweeri waxambaane yi bokk néeg hmm. te ku génn bëgg perte rek du dem seeti waaw loolu mooy la xam nga comme ker bi comme néeg la bant yi dañuy mat fanweer boo bëggee moom tàkk bant boobu moom jeexal xam <laughs> dëgg daal nañu wax loolu daal nañu ko baax a wax. waaw fekk ni ñu xamee almet. misaal bu mu la gën a dégg. waaw dafa am loo xam ne boo ko dund. daanaka rek ñàkk a dund gi ma taxam ma ta topp mu réylu nag. taxam mu tal xar mi kem réylu kuy. ne mer na. waa sadam mu de sàdd mul xisan jame. fi halatil karmi ci doomi sing sangara muy jame ci sangara mu ne wama shay'un idha fasada tahawwala ghayyuhu rasada wa in huwa raqa awsafan asara sarra haythu bada zakkiyul harqi waliduhu walakin bisa ma walada wa ma ana lan shay'un mooy dara hmm. ju xam ne ida fasada bu yàqoo hmm. taxawala jàllar be ko xayyuhoo réeram hmm. te mooy njubalim nga rasadan de njub ana loo xam ne bu yàqoo lay doon a baax mooy sàngara bu wuree mën a tuda nàndal kenn day nekk vinaigre te bu waa dana dagana jëriñ bu wuree mën a tuda nàndal kenn day nekk vinaigre bu waa dana dagana jëriñ isa isa fasada bu yàqoo taxaw wala jàll be ko xëy yóboo reer réeram mm. rasadan te jiw mm. wayin huwa ndegam yéeme na nga biri xaala raaka mm. aw ci melo waaye su melee nañ koy taggee dëgg dëgg kay asaara mu jeexi asarraay ay su bada fu mu feeñee ko kay dawa daw sori la ci xam ku ko laal mu yàqala mooy naan kat sàngara yi su ñu waxee sàngara si baax na la gën a bon zaki yu ne xaqi mm. aji sell ji cosaan la mm. waalidu woo bàyyam mm. garab bañ koy jëlee lu bëri la ju nit mën a jëriñoo ci wàllu dund wàllu àddina kon mu na cosaan lu sell lu sell zaki yu ne xaqi aji sell ji cosaan la waalidu woo bàyyam walakin waaye nag ji sa bon na maa war a dala muy jur waaye moom ji baaxul la in faxarta bi aba'in dawi sarafin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu xam naa loolu lay nuyu daal su ma tasa da topp mu gàddu asat tasiyaari xetu dox waa sada mu dalde sadda mulki fan gaaji jame ci tayyaari ci tayyaar tayyaar peese gaay xaalis wala wurus lay do ah ne ci peese xaalis ba wurus da cee leerale ay dara mu ci diinaar xamu mooy lan ci wolof dégg nga mm-hmm. ci loolu lay jamee mm-hmm. di nga fexe gay wurus lay ba mm-hmm. léegi booy lëgg mu mel comme janaaw xëy na mu ne wali tay sotin siqquhu maa ilu wa maa haabahu bihi maa haqilu ba ma àgg wasi tay sotin bari na borom ak kéy mooy koo xam ne xel na wut ci moom de sukkuhu walla maayilun aji jeng la wàll gi fay jeng léeg-léeg ndax xam nga misaan mm. li lëng fi jeng jëm suuf ba mm. maa xam boo wu ko nag mm. bii maa ci ñàkk xel boobu ak jeng boobu ah fi mu aji xelu mu laay taxoon nag ñaam xel de ko xel de waaw moom de àndu da xel mu de genn wàll gi fa jeng waaye taxoon na ñaam xel de ko de ko de ko de ko de ko yura dil na ko gis abadan faw mm. faw ka hen liyatin ci kaw hen liya mm. mooy dañ koy teg ci dara mm. dañ ko doon teew gars yi loolu lañ jël liya li may firi ci waxi arab mooy kër guñ tamaa ca kaw loolu wax dañ ko defal ay kenn tu wax dañ ko defal ay kenn ba ñu ko ñu liggéey ci kër ga loolu mooy hadiya wane jaman xalaali yaa mooy xor fa dégg nga ak woykat bi di wax bakkan naa ala ya nafsu way hakki saa diini bi saxin min kibi wala min layali laalla ki fil qiyamati an turuudi fi julaayit fi tilka lalaali noonu la ñëwoon alaali yi dama ko ci lu doon la dégg nga waaw waaye li ñu yoon mooy dañ ko wisal tegukaay nag ñu ko teg ci suuf waaye li yoon ci cosaan mooy loolu tegukaay dañuy yëkkati ay kenn bële kaw ñu tabax foofu ñu teg ci doon kaw mu ne ca kaw lañ koy def nag fu ñu ko wutal tegukaay kama yaatale ni ngi kowe almariku buur alhaadilu guraaji mm. maandu mm. tasaawa hemowana mm. ladayhi fa moom alhasa jembaray wonu daal ak wurus loo ca mën a teg day poids bu moom la koy jox rek soo ci pesaan doon wurus ak doji day so doj bi gën a diis doj bi lay jox poids de bu ma yestawi dana du yemu alhaqu dëgg wal baati ak meen waajibu awsaafi yi li gën a yéeme ci meloon nag inna latta boo settantalee boo xoolee kama yamburu ni ngi xoolee alkayisu aji ñëw alfadil ku aji gën taradil xosoomi mooy gërëmante wuy xuloo yi bi yi ci moom hakiman ci aji hat waqan araboo te xam nañ ne annahu moom mailun aji jeex na la ci gën a yéeme nag mooy xam wuñ xam dafa jeng te ñu nangu di ci àtte waaw waaw Mirza moom noonu la baaxoo baaxoo taxaw ko ci moom waaw hmm. ah. waa jibu maa gën jay waa jibu awsaaf yi gën jay yi muy ay meloom hmm. inna ratta boo settantale hmm. kama yanzuru ni gi seete alkayisu aji muus alfadil ku daaji gën taradil xudoomi muy gërëmante guy xulo bii cam xaakiman ci aji àtte waqad arafu te xam nañ ne annahu naka moom maa idun aji jeex la léegi nag andi nañ jamam bahaga xaalis xaala xaalis nee na wasalla talti heendu alafkaaru xelaat yi te yii mu de gëlëm fi awdiyatil awhaam ci xuri deflehu yi mooy xuri lënt mu dem ko ñu nekk ca de nat nati waaye ni tag lu mu xamul dara bu ne na ca xiraat te law lënt rek waaw ñu nekk ca de nat nati waaye ni tag lu mu xamul dara bu ne na ca xiraat mais ca nekk rek lu xam ko fadallat dal di hendu alaskaaru xilaat yi te yi mu diggalam fi awdiyatil awaam ci xuri deflewu yi wata joolu te ñuy wëndeelu ñoom xel yi jabalaan mustaham wëndeelu ku ñu soppuloo c'est que nga xam dafa sopp dara daal te gisu ko hmm. ni muy tuñ tuñee xaw fii xaw fële xelaat hmm. yi itam bëgg xam maanaam itam tëleen hmm. taxaw na lu ne xelaat koy nap ilaan taala ba yàgg al amadu diig mu muñal ñu ba mu yàgg waxasasa te leer al kamadu njàq mu wóor na mbir mi tënañu donte la ñu gën a noonu mooy kamat mooy njàq rek gu borom man dawale waaw waxasasa te leer al kamadu njàq ñu ne hmm. ñu ne ñu ah, ne xaasasal xaqu mooy am ci waxi arab hmm. te lu mu baax la hmm. xam naa gis nañ mu bëri de waaye gisuñ ci xiyaas lu tax ñu ne alkamalu manda do fani li xaasasal xam nga li ma wax ñi doon naq na ñu ne arab xaasasal xaqu la ñuy wax ma ne ah, xam naa gisuñ mu bëri de waaw waaye gisuñ ci xiyaas nag lu teg la ne alkamalu manda do fani li xaasasal gisuñ ko ñoom de wala raahum ba mu leen gisee nag mm. yas ni doone ñuy kocc mooy ñuy mm. di jéem a taal mm. wala sanante de leer de am wa yàq doona ñuy jeexalee annahaara bëccëg bi bil mun a ci bémbët bi mu gisee ñu nekk kenn ku nekk naan dafa jo muy nangam jombul muy nangam ji bëri te taxul mu de loola fala maara ay toom ba leen fala maara ahum ba mu leen gisee yas ni doona ñuy kos ñuy kocc wala sanante lee xamul wa yàq doona ñuy jeexale annaara bëccëg bil mun a ci mébat ma ne ba xam ne sëna lee xaala mu wax la mu xaala mu yaa xawmi bak yaa xawmi yéen samay bokk waa illaa ma jëm ci lan tanzuroona ngeen a seet waa taama ba kañ tunzuroona la déf leen yéexi mu ah, muñ dafa am fu muy xewi hmm. li ngay xoolit war nga koo gis hmm. wala nga xam ne man la koo gis hmm. alam yaane xanaa jotul lakum ñaaleen istiraajul xabiyi génne lu ñu nëpp mooy génne daxante aw istidlaamul xabiyi wala xomatul aji dox ku ko ci xam wax ko jot na ku ko ci xamuti nangu ne xamu ko jot na fu ko Mm. ilaa ma jëm ci la tanzuruna ngeen a xool mm. wa hatta ma bakkañ tanzuruna la def leen mu ñëleku mm. nekki fu mu jëm alam yaa ne xanaa jotul la kum ñaa la istihrajul xabiyi génne lu ñu leen ci ko wuci xam wax ko jot na de aw istislamul xabiyi wala xamatug aji do ko wuci xamu di nangu ne xamu ko jot na de wa qaaloo gaañi daal de wax la woo ñaa gaañi nee ko tallaahi giñ nañ ci yàlla hmm. la xadam wasta jëfeel nga de yow li nga li fa jëfe de hmm. hmm. nga asaraka fiit gi fa xanasta ngërëb tey nga rek wana sabta nga asaraka fiit gi fa xanasta ngërëb fa taa kam xatteel kee ko siita looso bu la neexee nga ne yëpp nangam la jee lay su la neexee nga ne benn bu su la ne bii nangam laa ci laaj bii nangam laa ci laaj mm. yaa xam mm. su la neexee nga ne yëpp nangam ngeen ma cee jox mm. ma leeral yëpp wala benn bu ne nangam la la ngeen ma cee jox wala bii moom nangam lañ ma cee jox bëri naa pataa samaatal kay fa siita loolu wuute na nga laqaal fon ma màng gi ah tey moom da nga jël dara ci suñuy poos wasiita ak bayre bi xam nga ndam li oo jàpp jàppalal xun ma maa ngi wasi daal tur wu rafet fafara da mu daal di dogal an kulli muhamman ci lépp lu ñu jame fardan ak ab cër ak ab dog waxtax la soo te mu sàkku koo jaboo min hum ci ñoom lu ñu teewal ba mu ko defee jam bu mu am lu mu wax ne moom lañ ko saa mu doon koo leeral mu ne nag ku mën taxaw nag na xam ne mën a gudd a ku ko waxal xamal leen deful mu a gudd a am na xam ne mën a gudd a ku ko waxal waaye moom leen deful waaw dëgg la wax dëgg bu baax a baax mu dogal an kulli muhamman ci lépp lu ñu jame mm. fardan dog wasax la soo mu sàkku koo jaboo minhum ci ñoom hmm. na dan muy lu ñu teewal hmm. summa fataha topp mu hubbi hmm. ala xafala xomb yi tëj tëj yi mu wasama mu mandargaal al afala yu ñu sàggane yi ala al xuflu mooy mooy jur guñ defalul benn mandarga buñ koy xàmme wa wasama mu mandargaal al afala yaamul mandarga waxaawalan mu daal di sàkku mm. alis bala fànnañ mm. boo ko defee bañ ko fayee lañ koy fay mm. lañ xamuloon mu waxal ñu ko ne kon baax man man ci fantala xa dal de haju bii ci moom medrewul xawmi kilifa nit ñi ki nga xam ne mooy jiite jataay bi kooku moo ko la ngaam wa qaala mu wax la woo ñaar ko mu ne ko laa lu fata del lënt bandal yow mi si gannaaw mu ne kuli yow kay ku dajeeg moom bu fekkee dem na bàyyi ko lu mu xamul kenn gënu ko ñàkk yitte loolu kilifa gi wax faatala xaaju bii ci moom midrahul qawmi kilifa bi nit ñi wa qaala te mu wax loo ñaal ko mu ne ko laa lu fata del bandal yow mi si gannaaw kay fastan si nga xaskanu qabla lintilaaxi ci njëkk booyu bala ngaa dem waxal ñu foo dëkk mm-hmm. waa faa jot ko mu naata talaaxi mm-hmm. muy yóbbala pase ñun mënuñ laa tëxee mm-hmm. waaye nag tàggo yin war a fen lu koo duggee rek comme jabar ji boo ko fasee doo ko dencati waaye da nga koy jox yóbbal muy tàggo yin war a fen rek waaw ñun mënuñ laa tëxee sax mënuñoo am nga toog bi waaye nag tàggo yin war a fen nga koy duggee rek fastanzir na nga askanu xablal intilaax ci njëkk booyu mm. eh, waa baa jox ko ba mu rabatalaax mu yóbbalu fa faatraqa mm. mu sanaagal mu dal de sëgg mm. hatta xul naa bañ wax ne murib aji dik mu sëgg ba xel yi di bëgg a jaaxle ci moom su ma te rongañ yi mu jiibun way dooteeku raj mu sagg mu commencé wëy loolu nga jàngi rob dégg nga mooy la mu jiwoon way xëyu lañ waaye man dafa bëggoon jooy bala ah, ma tamit ronge ni mu jiwoon way way xëyu la mu jiwoon ay xëyu la mooy loolu nga jàngi sottee mu ne saruju matli wa samsi wara mu lahwi wa unsi lakin xurim tu naemi biha wala data nafsi waatattu an ixtiraaban amarra yawmi wa amsi maa li maqarrun bi ardin wala qaraarun li ansi yawman bi najdin wa yawman bi saami udhi wa umsi urji samaana bi qootin munaqasin mustahassi wala abitu wa indi falsun wa man li bi falsi wa man yaes misla aysi baa xayaata bi baxsi mu ne saroor ju saroor hmm. matleon samsi mooy fenkuwaay sama jant hmm. saroor laa gane àddina de hmm. warama lahwi mooy wàccuwaayu suma fo wa unsi ak sama wéttal fala yaroo fala jaxale samay fani gune muy bu ma dàqal ci dëkki àddina bi ndax dëkk mi nit ki juddoo yaroo fa jaxale fa nguneem su fàttalee ko ayaamu sabibati wa sibaare mm. lim seen day amaat ci dëkk ba mm. waa mooy bu koy dàqal mm. wa hababat awtaana rijaali ilayhimu maaribu qadaha sababu hunalika lakin li fi nekk hurimtu xañees na ma naemi sama xéewal bihaa ci soroj wala data nafsi ak ba neexu sama bakkan waaye daal soroj daal dafa neexut ci man dara waxtattu wattee naa xanaa ci sëroj taxtiraaban tumaranke boo xam ne amarra wexal na yow mi sama tey wa am si ak sama dem sëroj ga ma nekkoon muy dëkk ma bàyyi ko ba léegi ci ay tumaranke la nekk booba la tàggoog ba neex maa di ñeexaluma makkarun saxuwaay bi ardin ci seen suuf wala xaraaroon déet déet Hmm. li am si di ñaar sama gélém man noppul huma hmm. sama war waaye noppul huma hmm. xut yi danaa yoor yoorlu yow man bi najdin wa yow man bi saam xut um yi danaa ngoonte yow man bi najdin wa yow man ak beneen bis bi saam tey dëkk bi ëllëg dëkk ba rek xut yi danaa màng asamaana jamono bi xootin ci dundu mu naxasin bare bu ñu naxal mutaxassin bare bu ñu xeeslu dund bu des gannaaw lay dund bu sell bi lay dund us jee dangaa màng asamaana jamono bi xóotin ci dund mun a xasin bare bu naxal mutaxassin bare bu ñu wala bi dir may fanaan waxeen di te nekk na fi man fasun benn koppar man ana kan may war lii ñaan fasun ci koppar sa allah raadu may fanaane benn rek ah fu mu ko jëlee bu ma yees ku dund na mu mit laay ji kem suma dund bi baa xam mu jaayee alxayaata dundam bi waxtin ci njëg gu suufe lor gu yàgg baaxut dafay waral dugg ci loo xëpp loo xam ne yow xëpp nga ko loolu moo ci nekk lor gu yàgg baaxut dafay waral dugg ci loo xam ne xëpp nga ko man moom a tax nekk fi di caaxaan dégg yéen rek dama amoon dara du ma ko nangu waaw bu ma yees ku dund na mu mit laay ji kem suma dund baax mu jaay alxayaata dundam mm. bi waxtin si jëkk mm. suufe su ma inna hoo topp moom mm. yaxtabana denc na xulaasata nabdi aji selli jomay gu teew ga wana dara te génn daari ban daaji dox fi lardi ci suufe donc ko defee nag boo war a denc lañ ko jox génn yi dem fa naasat naaxu ñi laaj ko ci ay yahoon de ba at waas ne naa te ñu yombalal la ko ñaar ko al moom de dëhali ñu ne ko dëgg dëgg daal nit ki daal boo gannaaw da nga koo xam fekk mu de mag na nga koo xamee doo ko ca mën a nga yow gannaaw daal doo xam sa mbir ñoom xalaatuñ tëyee la te itam duñ xam fuñ la fekk waaye dañoo bëgg wëree lu nga def si jaar lay def wala ñu si lee nga jaar fa rek su fekkoon tey jii yow foog nit ku mën a toog ñu ne la toppi wala boobu faa am fu ma dëkk fu ñu xam ñi man la faa fekk waaye gannaaw da ngay wëreelu daal ah day doon ñaan daal dox bi léeg-léeg nga boole ñu ci séddu ñu ci ngan gi ba su boobaa itam ah dana am lu mu jëriñ fa naasat naahu ñu laaj ko ci yàlla ay yemoode ba mu delsiaat waas nay naa ñu yombalal la woo ñaal ko alwoode dëhëli ndax dikkaat naam déet mm. mu ne la de mm. te man ko giñ ci sa baay dikkut de barki sa baay dikkut wala mm. déedéet de wa abi ka giñ naa ci sa baay maara jaa delliwu de dikkaatut de wala tarxibu de xewen loo loo ñaal ko na jaa di jëriñ yéen ko doon bëgg loo naan ko bu ñëwaatee nangam nangam yëpp taxu koo dëpp yëpp taxu koo dëpp yàgg na koo dégg moo tax yàgg na koo dégg moo tax yàgg na koo dégg dégg <laughs> ñu ne loolu dañ ko dul xamle rek mais nit ñi léeg-léeg dañ ko dul xamle léeg-léeg ñu la naxee ci loo xam ne yàgg nga koo dégg <laughs> yàgg na koo dégg loolu du ko tax a toog du ko tax a dëkk